merci à l'Assemblée. C'était pas facile. 13 ans. On a tout vu, on a tout entendu, mais on a tout endossé. Parce qu'il était de notre responsabilité d'aller, d'amener ce bateau à bon port. Bon an, bon an, bon an, bon an, mal bon an, mal an. Dieu avec tous les écrits qui sont survenus devant nous. alhamdulilah rabbi alamin mu jëwuñu pour so bi mu li ci amoon solo ëpp ci solo mooy équipe bi bu ñu koy joxe mu am kayitu juddu on l'a fait ñu am kayitu juddu parce que depuis le début ñu bari woon nañ ma tous le médial locaux m'ont demandé de parler j'ai dit je parle pas le linge sale se lave en famille loolu mooy wax wàllu góor buñ la dénkee doo bëggatu du ko la nga wax defewu ma noonu demewu noonu te ku koy defit doo doo kilifa alhamdulilah yàlla dimbali na ma dimbali ñi ma àndaloon ñu ñaar ñu sant ñëpp nag gërëm yëpp parce que aussi ku ku ku boot bukki xaj boola ku nanguwul ñu wax sa kaw bul jiitu bul jiitu fa ngeen jëm ka fay nekk na ko ñëpp jàppale feebaru Yoraaf mooy jiital la bàyyi la fa yow kenn képp kese tu tu tu invites les gens à des réunions ils ne viennent jamais bëgguñu réunion bëgguñu réunion bëgguñu parce que ils ne sont pas administratifs et c'est pas bon évolution moo toll foo xamee ne lii lépp lu ñuy def ci àddina dafa avancé tout à l'heure je disais un certificat un un un un un secrétaire administratif qui ne maîtrise pas la machine. foofu laa yem jamono moo dox jamono moo dox am na ay poste yoo xam ne dañ koy jox ñi ko yellool ñi ko mën a liggéey parce que ëllëg a tax il doit rendre compte Mbacké bul sonn baal naa la yàgg na tu es l'un des personnes que j'estime le plus au monde bilaay comme tu dis tu es un homme de principe moi je suis un de principe avec les principes dañ koy xeex ba mu jeex tàkk en a on s'est tout on s'est tout dit c'est normal c'est normal on s'est tout dit et c'est normal noonu la j'ai été aussi l'objet d'une plainte au niveau de la brigade de recherche en tant président du j'ai répondu parce que c'était ça sama doom ma baalu ak sama doom la mu saytaane ba mu ko defee xam naa ne sama doom la ma de fa fañ ma wooyee ma wax fa dama wax mais yàlla ay mbiram parce que dafa am décision boo xamee ne je vais lui dire ici je l'avais pris devant Dieu et devant les hommes que man Elaj Sarr tant que je suis vivant du ma tenir parce que j'ai un honneur à défendre y a des choses yoo xam ne war a yem fa mu war a yem bu ko dépassé day jéggi parce que j'ai une famille des enfants et il me faut laver mon honneur avant de remettre ce flambeau mais y a un déclic Malick Kane Malick Kane mu toog ci panel bi mu jël li nga xam ne moo gën a secret ci doomu aadama son bulletin médical il a mis ça dans le panel c'était dégueulasse dafa salte la mu fa nekkee xam naa ko depuis mais est-ce que tout le monde devait savoir ça par le panel parce que on l'a éclairé on l'a poussé à bout e c'est pas bon nous sommes des humains nous sommes des frères am na yoo xam ne mënu fi am tëdd fi am allah kulli la deuxième chose qui m'a poussé à faire ça Ousmane Thiongane ici présent je suis allé le voir en toute responsabilité parce que man bi ñuy def yëpp le point focal xam naa ko ANPEL des sports avec tous ses démembrements c'est le football qui les intéresse moom rek mu la intéresse Je suis allé vers je les ai facilité la tâche. C'était de mon devoir de le faire. Parce que l'histoire retiendra que Alaaji la ko la la yàq a ko moom yéen a ko moom tey laa leen koy jox parce que je le veux et avec un vraiment rafraîchi quoi donc sama xol mooy lii bés la l'histoire retiendra ce 15 octobre 2022 c'est écrit dans les annales ñi fi toog ñëpp. parce que d'ici vingt ans ñu jël baromètre qui viendront dañu naan li ngeen liggéey dara baax et c'est la la vie ça change c'est générationnel ñu fexe bi li ñu jublu nii ku ci nekk am sa pas-pas sa ngëm-ngëm sa jàpp wax ji dafay bari fii le travail sur le terrain ñu jël nag sa ça je dis ça au comité directeur il faut de bons représentants. pour que ñu mën a àgg dans les instances pour que ñu mën a pas mentir c' est pas n' importe qui qui va dans les instances Mbacké Seck est là foofu la ñu xamante nañu ah xamante nañu bu baax a baax a baax on sait qui est qui et qui peut faire quoi mais de koy jaarale ci yoon parce que c' est comme ça mais réunion yi léegi dafa jeex gars yi dañuy jóge fële waxtaan ñoo proposé gars yi dem en vingt minutes ku nekk dem parce que loolu la profilage bi profilage bi pour terminer bi gars yi Même si on ne le dit pas, c'est la réalité.